ñu ngi leen di nuyu rek di leen sant di leen gërëm di santaat yàlla bu baax a baax moom mi nga xam ni may nañu ñu liggéey atum 2017 ba mu jeex ñu toog fii jàkkaarloog suñu ay membre fas yéene leen a leeralal li nga xam ni moom la ñu liggéey PCA wax na ko léegi leeral na lépp li nga xam ni def nañ ko ci at mi te mu jëm ci wàllu administration ak coordination ñu nit ñu leeral li nga xam ni moom la ci diiru at gis nañu ni leble nañu 6 milliards yoo xam ni topp na waaye ci biir leble boobu commerce gis nañ ni moo ci ëpp ndax leble na 51 pour cent mu toll ci 3 milliards 280 nangam mille. ñu gis ni tamit activité bi topp ci commerce mu ngi jëm ci wàllu agriculture moom moo ëmb embouche moo ëmb aviculture moo ëmb maraîchage foofu tamit leble nañ fa 2 milliards et quelques. leble nañ ci transport tamit ay 78 millions leble ci finance islamique 162 millions leble tamit ci besoin personnel ay 400 et quelques millions kon ñu gis ni 6 milliards yooyu du loo xam dañ koy génnee wacc ko mu naaw waaye ay nit te def ay jéego yi ñu war a def jaar fi ñu war a jaar nekk membre ci PAMECAS wóolu ko ñëw monter seen dossier ñu càmbar ko bi ñu càmbaree gis nañu ni lebal nañu 5300 et quelques dossiers yoo xam ne ay góor lañ lebal 5300 et quelques yoo xam ne ay jigéen lañ waaye ñu lebal cent 1304 yoo xam ne ay groupe lañu te groupe yooyu ay groupe de 10 lañu kon dafay nekk ay 13000 et quelques jigéen yoo xam ni wax dëgg yàlla wóolu nañu kees bi te lebal nañ leen ci seen biir groupement ñu gis ni nag wax dëgg yàlla PAMECAS yàlla def na ci xéewal def na ci ngëneel ndax mutuelle yi bari nañ lool waaye membre yi ni ñu dawee ñëw ak organisation bi ñu fiy def ak nit leen di gunge ci wàllu formation loolu dafa am solo lool ndax nag suñuy membre dañ leen di tàggat ci éducation financière ci gestion des risques développement organisationnel dem bay laalaal sax chaîne de valeur yi ci wàllu production kon gis nañu ni membre bi rek du ñëw ñu lebal ko mu dem toog mais dañ koy sensibiliser waxtaan ak moom di ko encourager di ko accompagner ba micro entreprise bi nga xam ni taxawal na ko mu mën cee am ay ngëneel am ci ay bi ba mën a épargner ndax nag bu ñu nee mutuelle d'épargne et de crédit ndenc la ak leb su fekkee ni leb nga. sa liggéey dox nga mën a dencaat bala ngay mën di lebaat wala nga dem ba sa ndenc moomu nga mën ci liggéey yàlla nag dogal organes yi fi nekk muy CA CC ak CS ñu doxante loxo doon benn ànd ak suñu PCA macha allah mu boot ñëpp ànd ak ñëpp wàcce boppam ba tey PAMECAS egsi fi mu egsi ndax dégg nga bi muy présenté mun la cees la tout départ région Diourbel ak département Linguère kon loolu tamit du caaxaan dañuy jóge fii dem ba Daara Jolof di wër gasaan fu ne ñu dem bu ñu ñëwee Diourbel tamit dem Mbàkke dem Bambey dem Touba ci boppam kon loolu du caaxaan yaatu na mais nag wax dëgg yàlla liggéeykat yu am solo ñoo fi nekk soo ñëwee ci côté personnel bi la même chose ñun mënuñoo leble te jaarul ci agent de crédit jaarul ci analyste ba doog ko ñëw ñu jox ko comité validation ñu valider doog ñu ko indil ñun comité de crédit mais gis nañu ni saa yu fa egsee rek macha allah li ñu war a def dañ koy def ñoom li ñu defoon li ñu war a def ñu def ko ñuy gërëm suñu directeur bu baax ndax dégg ngeen résultat yi ñu fi présenté xaj na su fekkoon ni amuñu directeur bu baax am PCA bu baax am personnel boo xam ni ñu qualifié lañu ak membre dirigeant yoo xam ne ay jàmbaar lañu amaana résultat yi ñu fi am duñ ko fi am kon dañuy sant yàlla bu baax di gën a ñaax nit ñi rek nit ñuy lebee nañuy góor a góorgóorlu ci fay bi ndax présenté nañ fi suñu par un jour yi présenté par 30 jours yi présenté par 90 jours yi mais nag alhamdulilah macha allah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax jërë a jëf Yo no, no, con mi interés. Se puso a saber que la Gracias. Thank you.